xaw ma ndax dégg ngeen ma dañoo bëgg dinañ la génne kaso waaye da ngay génn Sénégal balaa ñuy gisanteeg moom ci biir kaso def nañ lu ñu mën ci biir hôpital ci biir grève de la faim bi pour mu recevoir leen mu ne moo lànk ñu ne ko Ousmane Sonko dañoo bëgg nga génn kaso dangay génn Sénégal nga génn kaso Ousmane Sonko ne leen feebaruma génnuma Sénégal ñu ne ko da ngay génn Sénégal dem faju ji waaw dinañ wax askanu Sénégal ne da ngaa feebar dañ la génnee Sénégal génnee la kaso pour nga dem faju ci mu ne leen man feebaruma lenn rek moo ma dal sama ñànkatang laa nam ma damaa gëj a lekk te ku gëj a lekk boo ko xoolee di ko xàmmee mu ne leen génnuma Sénégal ma bëggoon nag wax patriote yi wax askanu Sénégal fi ngeen jàpp ci Ousmane Sonko foofu la bu leen teggi seen loxo bu leen teggi seen tànk te Ousmane Sonko waruñoo gën a gore bu nekkoon keneen nangu na génn Sénégal mu ne man génnuma Sénégal bu dee condition bi pour génn te amul lu ma def mooy génn Sénégal génnuma kaso loolu nag am na ay weer pexe yooyu président Macky Sall nekkoon ngir génnee président Ousmane Sonko ca kaso ci pexe yooyu la nekk ba tey moo tax ngeen di dégg baat yu bëri dama bëgg bu baax ngeen dégg ma baat yu bëri ngeen di dégg moom mu ngi toog fu mu toog rek waxagul dara mënugul wax pexe yooyu ñu nekkoon pour génne ko kaso génne waale ko Sénégal niñ ko defee woon pour keneen président mag président Ousmane Sonko lank ba tëdd ci suuf ci pexe yooyu la ñu wëy ba fan yii paase waxtu yii paase ngeen di dégg ay baat yu bëri naan lii am naag lii am naag lii am naag loolu noonu ngeen di wax bi mu commencé yàgg na te président Ousmane Sonko dafa lànk dafa bañ président Ousmane Sonko c'est un homme de refus c'est un homme de principe président Ousmane Sonko du kuy daw gisuma lu muy daw du kuy ragal gisuma lu muy ragal donc moo tax ma bëgg a patriotes yi ñu ànd ak dal ñu ànd ak teey ñu ànd ak tek wax bu jotee wax dina jib bu ma leen ñamalee loolu rek ngeen war a xam ne kon bu kenn jaxle bu kenn caalit bu kenn faale waxu kenn bu kenn faale xawma Euh, post Facebook kenn bu kenn faale li nit yi di wax rajo ak télé di jéem a yàq deru Ousmane Sonko léegi nag askan wi dafa mobiliser wu ne ma lànk maa bañ du ñu def coup d'état du ñu randal élection loolu moo tiital président Macky Sall ba bugg fi indi diversion ba naan xawma ay amnistie ay dialogue ay leneen c'est de la diversion ñun li nga xam ne ci la ñu war a focus mooy ci lu ñu war a focus mooy élection day am cinq février président Macky Sall 2 février 2 mars 2 avril jeexal na ci boppu réew mi bu génnewee usman Sonko moo ko war bu génnewulee Ousmane Sonko génne ko moo ko war bu libéré les mille et quelques détenus politiques moo ko war bu bu leen génnewul moo ko war ndaxte da leen jàpp ñoom ñëpp ci loo xam ne du dëgg du yoon ñun nañu focus